société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen njàng ma ci université bu ndakaaru tama ëpp koy buum ndax coow la ko topp réew mi quotidien nenu coow loola sax xaajagu ta fay ma ngay jëm kaw bu doonum paxa ñu ne ma ngay gën a xóot ndax journal bi nee na conseil académique ba daganal na ñu wéyal njàng mi ci xarala yu bees yi li des ci at mi kon à distance lanu koo jàngee te réew mi quotidien nee na loola la étudiants yi doon bañ ba tax ñu soobu ci gerew sayesit loola leen mitti woon ban dugg le quotidien naan ñaxtu woowa it bun moywul sayes dana ko wéyal ndax ëllëg lay dajale ay section wam xam ban tànk lay taxawee ci coowal atum njàng miñ bëgg a yeggale ci xarala yu bees yi ca université bu ndakaaru ñu des ci yéeni kaay beeg amadou ba bu pastef miy wéy di ñaawlu tabbuk abdoulaye silla ca sénat ne méngoowul ak loi décret yooya fal abdoulaye silla ak ñeneen méngoowuñu it ak constitution kaddu yi ngudambub yu nu yor yor bi yeggee journal bi it yeggee ñu kaddu yi abib si mu naan Macky Sall xamal ne Ousmane Sonko moom mënoo koo génnee ci xolu sénégalais yi Sonko mooma it am na kuréel gu taxaw di ko xeexal ay opposant panafricain yu boot ci plateforme ñooy sàkku ci Macky Sall mu bàyyi ko moom Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle bi nu dëkmal ci yéene kaay bi yooyele opposant ña ngay wone seen njàqare ci tolluwaayu état de droit ci Sénégal te ko mandargaal di lu ñu tëj kaso opposant bi gën a mag di Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooma mandataire am di Ayib Daffé la bés bi xëy di nu xamaleeg moom tuddee ko Ayib Daffé waaye juram Balla Moussa Daffé di wax lim xam ci doomam ji lataa bés bi di nu wax naka la Ousmane Sonko doxalee ba samp ayib ca Sédhiou Aïda Mbodj mi samp ndëndëm ci élection présidentielle bi nu dëkkmal it ma ngay ñaawlu paluk Abdoulaye Sylla ca Sénat ne opposition bi du bàyyi mu sedd ndax dana songu dëkkëre bi Aïda Mbodj it nee na bis bu nu ko falee ci bopp réew mi contrat pétrolier ak gazier yi lay njëkk a songu Lat Diop moom songu na paaye ca ministère des sports les échos nee ñoom ñépp la dàq Léopold Senghor Cheikh Sarr ak Mamadou Fall retraité bu yàgg yàgg bu bees bi kon ay ndaw jël teg ci wetam te yéene kaay bi nee na paaye nag ban leen di dàq ñu bari ca ñoom ña ca Côte d'Ivoire nekkoon ci mission de prospection foofa leen yëgalee ni Lat Diop fubal na leen source a ne du ñooña doongu lan fubal ndax am nay préfet sous-préfet yoo xam ne it seppi nañ leen ci commandement territorial bi waaye li ci jaaxal yéene kaay bi mooy ñu baree ca ñoom la leen di màndargaal mooy lan bokk Linguère ak Aly Ngouille Ndiaye mi fi newoon ministre de l'intérieur nekk it candidat ci élection présidentielle bi nu dëkkmal source a ni fayantoom defante fii ak ñuy xam lu mu Walf Quotidien moom gis na ne Macky Sall day bëgg a def lu bees waaye ay màggat la cay àndal nii la journal bi joxoñee retraité yor ay post yu bakkane ci bopp nguur gi nguur googa nag ngir janook moom ci élection bi ñu dëkmal le témoin ngi laaj ndax fit mii nu taxawal mën naa def li fi FRTE defoon journal baa ngay fàttali ni ban jëmee ci élection 2000 opposition bi ci kilifteefu maître Abdoulaye Wade danoo taxawaloon front pour la régularité et la transparence des élections di FRTE mu amoon taxawaay bu mucc nu am alternance ñaar fukki at ak ñeent gannaaw loola ay parti politique ak i opposant samp foron pour l'inclusivité et la transparence des élections di fit moo ndax fit mi mën naa def la FRT defoon wii laaj la la témoin wéy di samp la tribune booba jamono samp aw laaj ni naka la nuy def ba dakkal mbëkk mi waaye naka la nuy téewee it ay ndaw yoo xam ne amoo loo leen jox Boubacar Seye njiital orison sans frontières booba jamono di joxe xalaatam ci pexe yi nguur gi nas ngir mbëkk mi dakk waaye nee na mënta doon police yi Khalifa Sall di joxe ñetti pexe Pierre Mboup bokk ci union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal di artu ñay dem bitim réew jaar ci gaal yi ne leen jamonoy sedd ji moom ku ci dem xamal na yaa tay la sa bakkan dee wa gën a yomb dund ci woowale yoon journal bi yeggee yeggeeñu kàdduy jur wu góor wu ñaari doomam yu jigéen tàggu tegu ci yoonu Espagne mu ñaanal leen ñu dem waaye nee na ban ko wonee ginnaaw ci la xam ne yëf yi garaaw na na mu yëgee ne ay doomam faatu nanu mooy ab vidéo buñ ko yónnee mu xàmmee ca seenub néew nee nag fi mu ne moom Sall ci laas di joxar bi état mi mel ni ko amul pexe ci jile jéeya jabet booba jamono ma ngay wéy di defi jéeya laas yeggee ñu artu gu bawoo centre bi ñuy fajee jabetik yi di Marc Sankhale bu Abbas Ndaw ñu ne bës bu jot daanu teg benn weewu tànkam ñaar te jabet dongo ko waral Sud Quotidien ñu bës bu jotit daanu dagg benn wala ñaari cëri ñoo xam ne jabet lañu am indi it yeneen ni leeral ci paj mi booba jamono l'observateur naan ñu paj mi dana gën a cher ci établissement privé de santé yi ndax taxe yu bees journal bi ne képp koy faju tey ci hôpital privé xamal ne hospitalisation ya téeméer bu ne daa ca teg fukk waaye yéene kaay bi nee na clinique yu bari bu nu mayuwul redressement fiscal ca loon jëm libération booba jamono du ñu yegg redressement fiscal ArcelorMittal lanu jàpp ci benn milliard bu teg ñaar téeméer ak juróom ci ay million journal bi ne monte société booba dafa doon wax ne dette fiscale am supprimé ko maanaam jeex na tàkk waaye booba xamul ne fisk ngi ci ay tànkam fisc mooma nag ArcelorMittal da ko doon bëgg a jaar ci PV de conciliation toftal ca téeméeri na nenu contenu local ci mbiram gaz ak pétrole juróogum na ñeenti téeméer ak juróom fukk ci ay milliards contenu local googa lay njariñam ca la Antoine Félix Diome miñ dénk pétrole ak lu ci aju di wax ci l'info na njariñ li mooy dana gën a suqali réew mi dimbale nu it ba li nuy jéggaane ji gën a néew dana it yokk doole képp ku yëngu ci wàll wi tax itam ndaw ñu bari am xëy waaye Sud Quotidien dikk na ci lees waxul ga nee na mooy njeextal yi exploitation minière di am ci environnement bi di aalam gi journal bi xëy def ci gëstu bu yaatu journal enquête booba jamono fësal njëkk lëndëm kurus ak ñaari sondel ne coupure courant yi tàmbaleeti na sonal lool waa ndakaaru Senelec di ca indiw ne bëgg gën a ñoŋal réseau bee waral pétition bi fi consommateur yi sumboon ngir ñaxtu ci njëgu courant bu seer bi journal bi nee na Senelec daana ca dajeek ñoom fukki fan ak ñett weeru novembre bi ñu ne ci njeextalu ay bés bi nu jëm réew mi quotidien nee na ci la tàmbali njaayu mbiye mi ñeel kan Côte d'Ivoire ci xarala yu bees yi lu sax Sadio ak Mané mësunoo doon ay xarit nee na it Salah bu lankoon a paas bal bi daanaka ñépp la doon merloo Aliou Cissé moom daa mel ni merewut kenn ca yam doon woo ndax day wéy ñoom ci liste bi mu war a teg ngir jongante beeg Soudan du Sud ak Togo buñ sukkandikoo ci stade ci sunu lamb Eumeu Sène moo fay tontu tafaatin naan ko ragaluma dara ci yow amulit lenn lu may calculer ci yow tafaatin moom tafaatin mooy tëj li ci yéene kaay tey ñu ngi leen di ñaanal kendal ak jàmm ba ëllëg incha allah.